jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci As24 Actu nuyu nañ leen di leen di wax nag ngeen di abonné waaye itam di like vidéo yi ginnaaw seet seetal bi nga xam ne kii di président de la république Bassirou Diomaye Faye daal dina ci joxe woon ab ndogal weer wu dee loolu nag ni ki tey ji ñi ngi ko doon amal ci école yi waaye itam ñu daal koy nattoon ci autorité bu nekk wala ku nekk école bi nga xam ne jàpp nga ne fa nga génne nga dem fa def li nga xamante ne seeni mooy sa devoir ngir kat ubbi teg école gi mën a yemb loolu nag ki tey ji président de la république Bassirou Diomaye Faye daal dinay demoon ca fa nga xam ne moom moo di diwaanu Mbour ca lycée Demba Diop waaye itam eh, nekk def fa la nga xamante ne si ne moo di ab devoir am bi nga xamante ne si na koy eh, di eh, santaane niki loolu nag tax na ñu daal di fay nemmiku ay mbir yoo xam si ne mbir yu historique la waaye itam yu daw daw yaram ci diggante kii di président de la république ba Bassirou Diomaye Faye ak élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca lycée Demba Diop itam daa di reefe daa di àgg fi nga xamante ne si ne àgg na fa naka noonu itam ak professeurs yi nga xamante ne si ne ñoom ñoo ko doon jàngal ñoo ñëpp daal di leen di rencontre waaye itam seen xol daal di féex lool ñu daal di ànd ak li nga xamante ne si moo di ak yaatu ak fierté bi nga xam si ne am nañ ko ci gis koo xam ne mooy président de la république rawatina mu jógee ci seeni loxo rawatina yit mu daal di génnee ci lycée ba nga xam ne moo di Demba Diop waaye itam kii di président de la république Bassirou Diomaye Faye yëkkati ay kàddu daal di xamalaat population bi lan mooy devoir bi nga xamante ne si ne ah, citoyen bi dëkk cim réew noonu la war a comporter waaye itam ak élèves yi it ñu daal di gën a am fierté ci li nga xamante ne si ne mooy seenum réew ak seeni cosaan ak ah, seeni aada waaye itam seeni gëm-gëm ñu daal di sàmmonteeg moom waaye itam gën a am ab respect akub dal naka noonu itam ñi daal di jiital li nga xamante ne seeni moo di avenir u ëllëg ndaxte avenir u ëllëg kat mooy avenir ndaw li loolu nag nekk kàddu yi nga xam ne kii di président de la république yëkkati na ko ci jotaay boobu nga xamante ne si ne doon na ko amal la nga xam si ne moo di seet seetal bi nga xam ne doon nañ ko fa amal loolu nag nekk loo xam ne lu amoon am solo la ni ki tey jii ca fa nga xam ne moo di diwaanu Mbuur